daal di teg leen loxo fi mu ne nii ñu ngi sàkku nag fi mu ne seen diggante sëñ Muntaxa ma yëlif dëkk ba daal di koy lijjanti balaa leneen di ci xew ëllëg Marema Diop. jàmmarloo ci diggante ay taalibe Serigne Saliou Thioune ak soxna Aïda Diallo fii ci janatu ni ngi talaata ginnaaw boobe nag ba léegi ñaari camp yooyu duñu laalante benn yoon ci diwaan boobee lu nu mel moo tax yu Mboup jiite ay taalibe yu Serigne Saliou Thioune dina xar lu nu mel ginnaaw bi ñu xëyee tey ñu teg ay loxo ñenn ci ñoom. parce que gi jàllee ba léegi amatuñu jàmm ñun coow lu mujj lii gone ak gone ndax daaray gone yi lañ ko tuddee daaray Lamine Mbaye ñoo doon kër ñooñu ñu kooku moo ñëw fekk xale yi taxaw di leen saaga ndey dans un temps xale yi noppi mais bi mu ko dollee ñu yéen doo ay góor sax am ci ku riposté coow am fa ñu xeex blessé yi ñaar lañu ci ñi ma xam kenn ki ci bopp la gaañu kenn ki ci loxo. ngir bañ nag jafe-jafe bi di wéy ci diwaan boobee moo tax ñu ngi sàkku ci kilifa dëkk bi mu daal di ci àddu balaa mbir mi di ëppi loxo. ñoo ngi ñaan kilifa yi su kilifa yi xam nañ Tuubaa ñi fi kilifa yi. ñu dimbali ko ëpp boo xeexee blessure yopp ni dem ci loo xam ne xajul ci rajo kon gaaw ñëw dimbali ñu lii ñu